ñu dikk yéen ci li gën fës yi yéenikaay si du quotidien koy dore mi xëy nag di wax ci lu ñeel ubbiteg lokal bi muy ne luy tolloog ñeenti millions yu toftal téeméer yu toftal ñeenti téeméer rek ñeent ci ay ndongo daal dinañuy tàmbale njàng mi niki ji ci altine ji ndax daara yi nag ubbi nañu seeni lokal journal bi di si du moom moo xamle lu mel waaye tamit mu wax ci wàllum politique ne ki nga xam moo fi nekkoon jiitu réew Macky législative ngir nekk député noonee la ko Sud Quotidien daal di xam ne waaye tamit enquête quotidien nañu dee Sonko ak Macky Sall danañu jàmmaarloo ndax na ki nga xam te ni moom moo di Macky Sall fas di ne tekki ndombal tànk la nga xam te amoon na ko ca la doon woowee 4 foofee nga xam te moom moo di ca Paris waaye tamit moom nag gannaaw ba nga xam te jàppoon na ab meeting bu mu waroon a amal ni ki fukki fan ci weeru octobre bi fa nga xam te ngir jàkkaarloo ak militant am yi nga xam te ñoo nekk ci diaspora bi mujj na ko daal di randal nag waaye daawul di jàpp ab date bu yees noonee ko journal bi xam ne waaye tamit mu ne ndax ki nga xam te moom mu di njiitu réew bu di Macky Sall nag moom daal di xam ne rek ni moom kon dana jàmmaarloo ak ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko te dana ànd ak Karim Wade ñoom ñoom ñaar ñoo nar a daal di def campagne nag ci législative yi nga xam te moom la ñu dëgmal ngir jàmmarloo ak ñi nga xam te ñoo di waa Pastef ak seen i alliés daal tekki ndombal tànkam ci 4P bu 9 jotee dootul nekk njiit la meeting ba nga xam waroon na ko amal ca Paris le point acti nañu de daal dina koy dàq ba diggi jamono le mandat yéeni kaay nañu nag lu ñeel wàllum finance publique mu ne lendemain incertain après les effets induits les réformes et le secrétaire d'État au développement des PME lave à grande eau le gouvernement moom nag mu ngay seetal deru gouvernement boobu Sénégal ndax nag ñooñ daal du lenn ca la nga xam te mooy note boobee nga xam jox nañ ko réewum Sénégal ci wàllum koom te mu nekk note boo xamante ni baaxul dara Walf Fadjri quotidien nañu dégradation de la note du Sénégal par Moody's ce qui nous prend la nga xam te moom la ñu mën a seetu ci mbir moomu Meissa Ba bu xam-xamam màcc ci wàllum koom mu ne la nga xam te moom moo nar a nekk njeexital ya des na ko a Ibrahima Thiam nekk secrétaire d'État au développement des PME mu ne la sortie du premier ministre va booster les investissements dana tax ñi nga ni ñoom ñoo yor investissement yi ci biir réewum Sénégal danañu ko yokk ndax nag danañu gën a am kóolute ci sunum réew te na nga xam noonee la doxalee Bougane Gueye Dany ne su nga xam moom moo di Ousmane Sonko nag moom moo yàq dérub Sénégal jax fa nga xam moo di ci àdduna wërngal këpp grand panel amu ca firnde loonee lañ ko xam ne ci biir grand panel waaye tamit ki nga xam te moom moo di njiitu réew la ñu doon woowee bëccëg gi nga xam moom la ñu jagleel seetal sunum réew naka moom daal dinay dem fa nga xam te moom moo di ca diwaanu Mbuur waaye tamit jàkkaarloo ak ndaw ñi wax ak ñoom ci lu ñeel wàllum mbëkk mi xam te ni bëri na lool ci réewum Sénégal moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye la muy sàkku ca ndaw ñu nag mooy ñu daal di dal tuuti nag te xam ne ñu leen indil ay mbir yoo xam ne dana mën a tax ñu amum xëy waaye tamit génn ci jafe-jafe yi nga xam te moom la ñu nekk Fatou Blondin Diouf prône un lavage de cerveau la nga xam xam ne na ko daal mooy ñu amal ab lavage de cerveau les échos yéenikaay moom itamit nga xam moo di dénonciation d'un marché par entente directe de milliards par le forum civil mu ne l'ARCOP donne raison à Ecotra et annonce des ñoom nag ñu ngi xam ne rek ni kon Ecotra la nga xam doon na wax daal dëgg la ñi nga xam ñoo bokk ci kuréel gi di DGPU amalub audit les éco yéeni dikkaat na tamit ci nga xam te wàllum activité internationale yooyu njiitu réew bu woon di Macky mu ne nag moom daal nay tekki ndombal tànkam ca la nga xam moom la di a ilimaani jëwriñ ju Ousmane Sonko ci jongante législative yi nga xam moom la ñu dëgmal ko journal bi xam direct news nañu nag la nga xam te présentation situation des finances publiques bu Sénégal Alhassane Nia moom nag chiffres yi nga xam te gouvernement bi daal dina koy bëral turbine yéen nañu nag législative anticipée Macky démissionne pour venir battre campagne dana ñëw ci biir réewum Sénégal te itam dana jàmmarloo ak nga xam te moom moo di Ousmane Sonko daal di campagne ak moom bu ko defee nag la xam te moom moo di bëgg-bëggam daal mooy ñu daal am ndam ci yooyu lay jogante législative daal leen ëpp ay toogu foofee nga xam te moom moo di ca assemblée nationale kii di Bougane Gueye Dany ci biir journal La Tribune yéen i kaay di xam ne kii di Ousmane Sonko sañ-sañu ngir liggéey ak moom critique yéen kaay noo ne loo ko daal di fësalawaate fësal ci xër bu njëkk nataal Bougane Gueye Dany mu ne Ousmane Sonko a nuit à la réputation du Sénégal critique yéen tamit dikkaat na ca la nga xamante ni moom moo nekk xememteefu njiitu réew bu muy dikkaat ci biir réewum Sénégal battre campagne bokk ci nga xamante ni dañuy dagaan baatu askan bi ci jongante législative yi nga xam moom la dëgmal Vox Populi ne ñu koom-koomu réewu Sénégal nee nañu nag ñi nga xam te ñoom ñoo di nguur gi daal dañ leen di tuumaal te amul benn firnde boo xam ne mënees na ko teg ci kaw taabal yi ngir nag dëggal kàddu yi nga xam te yëkkati ko teg ko ci seenu ndodd l'indépendant yéeni nañu nag l'école bi daal dinay ubbi ni ki tey altine yem ak juróom-ñaari fan ci weeru octobre mu ne nag la nga xam te na ci ay ndongo yoo xam te dem nañ ca daara ya tey ji mënees na ko xame ci ñeenti

la nekkoon lu ëpp juróom-ñeenti téeméeri doomu Sénégal ñoom nag ñoo nekk ca dëkk boobee fi mu toll la ñu bëgg mooy génn ca ni mu ngay wax na ci diggante Sénégal yi ak libanais yi nga xam te ñu ngi ca biir réew moomee l'observateur yéeni kaay daal dina koy amal waaye tamit moom daal dina dikk ci li nga xam te moo ñeel arrêté ministériel ba Moustapha Guirassy mu ñeel nag lu jëm ci wàllum jàng mekk njàngale bi yëral journal bi di l'observateur yéeni kaay na ci teral quotidien nañu dégradation de la notation Sénégal mu ne nag nag l'APR fait porter le bonnet d'âne a Ousmane Sonko ñi nga xam te ñoom ñoo di waa APR nag ñoom ne nañ lu di njiig njaagate kii di Ousmane Sonko moom mooy njaag bu fekkente ni deru Sénégal dafa tilim ci àdduna wërngal ko loolu Ousmane Sonko mi génn ne li nga xam te moom moo di chiffre Sénégal dañu ko falsifié modifié ko lii quotidien nañu nag finance publique accusation du premier ministre contre le régime sortant mu ne l'APR conteste et accuse ñi ñoom ñoo di waa APR daal nee nañu lu ni mel du dëgg waaye tamit ñoom it yi ñoom ñoo nekk ci nguur gi jamono jile ñoom ñoo tax ba sunum réew jaratul dara ci àdduna wërngal këpp la Dakar waay nañu nag sortie médiatique de Birame Souleye Diop sur les motifs de limogeage mu ne démenti du collectif des licenciés gannaaw ñoo xam te ni yëngati ci lu jëm ci wàllu min ñu dàq leen te yi tamit jëwriñ ji génnoon di wax la nga xam te moom moo ko waral ñoom i tamit daal dinañuy génn weddi lu ni mel le républicain yéenikaay jàppale ki nga xam te moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci gaaw gi nag daal dina bokk ci nga xam te nañu ci mbedd yi dem ci biir l'école yi ngir nag daal di koy set setal loolee nag tax na ba journal bi dañu daal askanu Sénégal sax daanaka ñoom ñëpp ñoo àndandoo def wenn say ngir nag dugg ci biir l'école yi daal di la nga xam nekk na fa ci tilim tilim bu ko defee ndongo yi tey jii ñu mën a dem tàmbali seenum njàng ci da nga xam ndombal tànk ga ñu ko joxoon ca tugal daal dina koy tekkee surpris le camp de Amadou Ba lance des pics à l'ancien président ñi xam te ñoom ñoo far ak Amadou Ba fi mu toll ni tàmbali nañoo sànni xeer Macky Sall ak ay jege ñaaleem l'évidence quotidienne nag ñu lu ñeel wàllum nawet bi fi mu toll nii boo demee ci kaw gi njàqare la ñu nekk nag ndax jàpp nañu daal la nga xam te ñu ngi ko doon xaar boo moytuwul mën na bañ a demee noonu ndax nag li nga xam te moom moo di nawet bi daal xaw na yéeme lool mu ne tànk ñi nga xam te ñoom ñoo di waa aar sunu moomeel nañ ci la te moo nar a jóge ci le kaay moom itamit xëy beneen xibaar bu tiis ki nga xam te moom moo di Lat Diop te ñu koy toppee lu ñeel wàllum détournement de deniers publics jamono ji lee rawatina nag jëf ji nga xam te defoon na ko ca Lonase ak yenn këru liggéeyukaay yu ci demee ni wan yoo xam te dañuy liggéey ci wàllum pari mu ne nag ki nga xam te moom moo di bàyyam daal dinay wuyu ji boroomam ñeenti fan gannaaw ba nga xam te ni daal dinañu koy teg loxo moom Lat Diop en relief quotidien nañu projet de réhabilitation d' extension du lycée Demba Diop ki nga xam moo di njiitu réew mi wax na ci mbir moom bu travaux plus de rigueur dans surveillance des travaux lu ñeel surveillance des travaux yi daal moom njiitu réew mi nee na nag ñu gën ci daal di def fulla libération quotidienne ne ñu nag attribution de grosse surface foncière à des compagnies la nga xam te nemmeeku nañ ko jamono jile mooy daal suuf su bëri soo xamante ne dañu koy jël jox ko ay kilifa wala itam ñu jox ko ay këru liggéeyukaay nguur gi nag jamono jile ñu ngi amal ab l'enquête bu yaato yaato biir ñeneen ñoo moom suuf soosulee journal bi tamit dikkaat na ci ngan gi nga xam te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ko niki démb foofee nga xamante ni moo di ca Mbuur nee na nag nañu booloo waaye tamit wax na ci li nga xam te moom moo nekk kàddu yi kilifay FMI daal di yëkkati nag ni ñoom gannaaw ba nga xam te ni nguurug Sénégal amal na ko audit li nga xam te moo ñeel finance publique yi nag ñoom rafetlu nañu ko te danañu ànd ak moom ngir daal di koy gunge ci loolee yooyu lay kàddu njiitu réew mi rafetlu na ko yor yor quotidien nañu soutien du FMI à l'État du Sénégal les mensonges du régime de Macky encore musuwaay mu ne nag kàcc yi nga xamante ni nguurug Macky Sall doon na ko fi def loolee lépp daal dinay sulleeku jamono jile journal bi daal di fasal ci xëtam njëkk nataalu Ilimani Diorou ji Ousmane Sonko ak kilifa ka FMI bi nga xam te ñoom pare nañ fi mu toll nii ngir gunge réewum Sénégal ba noppi tamit rafetlu li nga xam te moom moo nekk seeni doxalin ca gannaaw ba nga xam kon li gënoon a fës yéene kaay ñu doon leen ko digtal di leen jox dig daje ëllëg incha allah